waa ñi ngeeg euh, kenn koo xam ne xam na Adji saar bu baax euh, umpaañam la euh, ñu fas yéene séq ak moom waxtaan sa digganteeg aji ci wàllu mbokk lan la Adji man yumpaañam laa ndax nijaayam laa doon sëyal ci jifir hmm. waaw boo nekkee ak moom jifir tamit ndax Adji nekkoon na jifir avant muy ñëw Dakar hmm, hmm. bi mu ñëwee nekk ci fir boobu man maa ngi yor foofu restaurant. Mhm. bi ma fa yoree restaurant gisanteeg nijaay mii bëggante moom mu ñëw nekk ci man avant boobu nijaayam taxaguma. Mhm. bi mu nekkee ci man daan ma jàppale ba mu yàgg mu ne liggéey bi dafa metti mhm. fekk ci fan yooyu noonu jëloon na fa téléphone jàmbur boo xam ne ni iPhone la woon ba xale yu góor yi mool yooyu sax indi woon fa ay xeex foofu ay xeex yu metti ñu jël ko rawale ko yóbbu ko benn dëkk bu ñuy wax yaayam ca gannaaw jifiir ci côté booy dem ki palma kii euh, Fimela laa ma nga ci côté yoonu campement Ndangam waaw léegi bi mu nekkee foofu ba mu yàgg mu jugee fa na day dem fii dakaar benn dëkk bu ñuy wax benn koñ bu ñuy wax Grand Yoff la wax na fa lay dem Grand Yoff benn tantam moo fa nekk yoroon fa restaurant moom tamit mm-hmm. bi mu ñëwee yàggu fa dara mu daal di day dem Pikine wuti foofu liggéey ci benn magu yaayam. Mhm. mu foofu tantam bi ne grand yof bi mu demee Pikine ci magu yaayam bi mu liggéey foofu tuuti ne am na liggéey mu woo sama jëkkër ne ko am na liggéey ci benn salon massage dem mhm. na am na liggéey ci salon massage ma jëkkër ne ko waa baax na yow de kenn dafa xamul loo bëgg ndax lu ñu la dégg tey bu subaa ñu liggéey mu ne ko fii moom dinaa fi liggéey ñu dem ay fan benn xaritam ne ma aji de. nee na instant bii dafa am buzz ndax day maase ku ñuy wax Ousmane Sonko mu ne ko kooku ci lan lay liggéey man sax waykat la mu ne ma kooku ci ministre affaire ministre politique yi lay liggéey ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko kon baax na yàlla ko ci yàlla jàppale ñu demaat demaat demaat ba ca kanam mu woote waat ci sama téléphone boobu nijaay mi téléphone bi mu wootee sama téléphone ma ne ko kooka la doomu jàmbur mu ne ma waa tante ma ne ko ça va ñu nuyante pare ndax sama téléphone bi bu ma la deful bu ma ko yokkul def ko may libre. Mhm. du ma la dégg mooy téléphone yi doon jar kii simple Italie. moo mhm. ne ko xaa ma ma jox ma ko ma dem ca mbaar mi fi ma doon toggee noonu tam am mbaar. Mhm. boobu maa ngi togg añ ceebu keccax ma yëkkati nii sama cin. bi ma ko wuyoo pare ma yëkkati ko jox ko nijaayam ñëw nag sa du foofu di yekk. ma dégg ci téléphone mu naan nijaayam man di nijaay. dafa am liggéey bu ñu ma bëgg def loo nijaayam ne ko loolu ban liggéey la mu ne ko liggéey bi de dañ ne Ousmane Sonko bi may maase naa ko waxal dara nijaayam ne ko bu fekkee loolu la nañ la ci jox loo xam ne bu ëllëgee dina la mën a jëriñ ma sigi xool ko ne ko mu ne ko nañ la jox boo xam ne ni bu ëllëgee dinañ ci mën a jëriñu sax njaboot jëriñu ci ndax alalu euh, politique alalu baytimaan la dégg nga maam Mhm. alalu bayti maam la loo ci laaj dañ la koy jox te luñ la jox nag alalu àdduna bi lépp lañ la jox. Mhm. mu daal di ne ko waa baax na ñu teg ci ay fan mu ne ko yow aji liñ koy waxal ku nekk ngi wax aji songo aji songo te wax ji mi ngi bëgg a bëri kii lii muy def nii lan la mu ne ma sa yoon nekku ci man xam naa da ngaa a teg bët sama famille bi man ne ko man amoon may tegante bët ci sa famille parce que man sa famille man ne ko man soxna dong laaj. kon oma leen lu ma ci lu ma ci dogalul mu ne ma yow sax da nga waxoon da nga bëgg a def commerce ma ne ko waaw ma ko est-ce que xam nga benn mbir mu ne ah ma ne ko coow li fii man dina fexe ba dinaa dem wax ne yow aji lii ay fen la mun ne ma ah ma ne ko ne am nga fi tam ma ne ko capable naa lu ëpp loolu mos naa la ba xaañ xeer mu ne waaw ma ne ko bii paa dinaa dem ma wax ne lii du dëgg mi ne ma dinaa xam ndax am nga fit boobu ma ne ko am na ko mi ne ma ndax sa commerce bi nga doon wax ma ne ko maa ngi boobu léegi maa ngi la ko wax lijjanti woo ko ma dinaa leen jox trois cent mille nga liggéey nga bàyyi ma ay waxi Adji Sarr bu ci wax ma ne ko dinaa ci wax bu dee moo tax nga jox ma trois cent mille denc leen seen trois cent mille dinaa wax ba sàggar xeeñ man dëkk li may wax nii xam naa ne suñ ko déggee sax nañ xam ne man sama baat la ndax maa ko wax jaay ma xam na ma ay xam nañ ma mais li may wax nëbb ma ko waxuma ko moom moo ko def man maa ko wax waaw. kon daal mbir mi yow jàpp nga ne ne complot la bu leer. bu leer ni midi ndax nijaayam ci la bokk. Mm-hmm. bu leer ni midi laa la wax nii foofu maa maa ko wax. Mm-hmm. waaw. léegi nag boobu ba léegi nag yow amuloo ay menaces ak dara yuy dal si kaw. kenn waxaguma dara. Euh, léegi aji Sarr moom amu leen benn xibaar ci moom. man de dégg ko ma benn xibaar ci moom. Hmm. est-ce que nijaayam boobu mën na xam kan la. ah nijaayam na mu dëgg yàlla moom mënu ma joxe tuur. fu hmm. ngeen ko gisee daal mu ngi ji fiir su ngeen ko bëggee ji tamit mi ngi ji fiir. bu hmm. ngeen liggéey ji fiir moom di ngeen xam. lan la nijaayam boobu di liggéey. nijaayam boobu day dem ji dérènement rek ji. day dem géej gi maare ji waaw. waaw yan ci kàddu nga bëgg a yokk ci mbir mi rek pour mu gën a leer. man daal li ma ci mën a wax mooy kan xale la mais xale bu yàgg luubal la moom aji lañ koy wax mais yéen aji saar ngeen xam yéen waa Ndakaar yi koy wax aji saar mais ñun aji raabi saar lañ xam aji raabi saar lañ xam xale bu yàgg luubal la te daawut tee loxoom tamit. teewuloon loxoom bi dara da daan yóbbu li ma ci gën a xam daal mooy kan góor booy lekk lekkal lu lew man daal loolu laa amoon comme lu ma koy wax waaw. maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci leeral yi ñu indil jërëjëf. maa ngi jërëjëf.